ñu ngi leen di nuyu ci nuyu lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk la Ahmed Dame Cissé ñu ngi dellusiwaat ci suñu darsu bu bees ci talaatul anwaar fi almi athaari nabi al muxtaar bu sidi abdullah Shinqiti ñu ngi doon jàng xadiisu saxiix ba jeexaloon ko ñu war a ñëw nag ci xadiisul xasan ndax waxoon nañ la xadis benn mu nekk saxiix wala mu nekk xasan wala mu nekk daif léegi nag xadisu saxiix jàng nañ ko juróomi charte yi nga xam ne mooy dajee ñu tuddee ko xadisun saxiix minhu ma yattasilu sanaduhu duna shududin yaxsulu وليس فيه علة تعطل وكل راو ضابط معدل لأنه نمك وخيرا منه صحيح وهو ما يتصل سنده دون شذوذ يحصل تاي نيغي ورا نيو تي حديث الحسن خمغا حديث صحيح جرومي شرط لا نيوخون منه صحيح منه امنا تي حديث صحيح حديث بو خمنا حديث صحيح ني نال موي صحيح من ما يتصل سنده موي بو خمنا سند بي دافا ام اتصال دافا جوك دون شذوذ انت نيكو شاذ منه ما يتصل سند دون شذوذ يحصل وليس فيه علة تعطل تعمد بنا علة بو خمنا كتل ويروك حديث به وكل راو ضابط معدل جوم شرط يويو مونيك مونيك حديث صحيح حديث الحسن يتم جوم شرط يويو مو دجي حسن وعينك نك بن شرط با تفقه فا خاو وليس دفع وحنا منه صحيح وما يتسل سنده دون شذوذ يحصل وليس في علة تعطل وكل راو ضابط وخونا إلا بأن منك دبت صدر ولا منك دبت كتاب لكنك سفك رجال الصحة لا حديث بوقنا حديث صحيح رجال الصحة نوم دنيك في غاية الضبط والحفظ دنيك دايوك مكل أكدبت رجال الحسن نك نعم دنيا نك نيو خامن دنيا ام توسط تي دات اك حفظ لول رك مو حديث الحسن اك داي تي الحسن بيغا خامن مو غنا سيو غنا وير من وهو في الحجة كصحيح ودونه إن سير لترجيح لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله وكل شرط في الصحيح يشترط في ذا سوى التقصير عند من فرط وحيث تابع الداعي فمعتبر فحسن لغيره وهو النظر ما لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره به وهو مم حديث الحسن الحسن لغة شارح بدفعنا ما تشتهيه النفس مويلب لو قمنا نفس دفكو بق دفكو صب بق قرك لن يتدي حسن مويل ورفت الحسن استلاحا أمنا اختلاف ñi taarifee ko ni ñi taarifee ko ni ñi taarifee ko ni waye nak baram téré bi mom lim ci wax mu ngi ni mune wa huwa mom hadithul hasan fil hujjati ki lay ka sahih dafa mel ni ka hadithu sahih manam kom ni nga xamé ni hadithu sahih hadith la bo xamné yuhtajju bihi dañ ci laye dañ koy jëfé te dañ koy layee kadalika hadithul hasan itam momit yuhtajju bihi momit man nañ ci dafay ihtijaj man nañ ci laye moo tax mu ne wa huwa moom xadisul xasan ka saxiix yi comme xadisu saxiix la ci lan fil xujjati ci lay maanaam fil ixtijaaj waaye nag wa doonahoo yées na ko nag ci daraja in siira ndem mu jëleef na ko li tarjiixi jëm ci lëngal mooy nag su fekkee dañoo dem ci tarjiix nag moom su boobaa moo yées xadisul xadisu saxiix maanaam su fekkee ñoom ñaar dañoo def taarut ñaari hadith yo xamne dañu def taarut moy tanaqud dafa am seen diggante ñom ñaar te hadith bi dafa nek hadith sahih hadith bi nek hadith al hasan donte ñom ñaar ñëpp man nañ def ixtijaaj way suñu defé taarut hadith sahih bi mom lañu jital ci hadith bi nga xamne hadith al hasan la moo mu ne wa doonahu yes nako nak nag yes nako ci daraja doonahu fil quwwa in siira ndem mu jëleef li tarjiixi jëm ci lëngal su fekkee rek ngeen di lëngal ñoom ñaar nag su booba xadisul xasan moo suufee xadisu saxix xadisu saxix moo féetee kaw nga ne ko lu tax mu ne li anna hada qasurat rijaluhu fi lxifdi duna munkarin yanaaluhu li anna hada ngir naka xasin xasan mii qasurat gàtt na rijaluhu ay góoram fi lxifdi ci mokkal doona munkarin ci ludut weddi goo xam ne yanaaluhu dana ko jot yanaaluhu dana ko am ndax xasan moom rijaal ya qasurat rijaaluhu fi lxifze ñoom seen rijaalu xasan ñoom yegguñ fi gaayati dabti wal xifze ñoom dañu am tawasut rek ci dabtu ak xifzu waaye yegguñ ci darajab darajab ñi nga xam ne ñooy rijaalu sixa fañ yegg ci darajab dabtu ak xifzu ñoom yegguñ fa loolu rek moo wutale xadisul xasan ak daif ما خم دنيا متوسط كدبتوك حفظ كسواء يجون في غاية الضبط والحفظ يجون كدايب مكل أقوته وطمنا لأن هذا أنك حسن من قصر قرتنا رجاله أي قورم في الحفظ كوتو كمكل عن رجال الصحيح دون منكر تلوذك ويدك وقن يناله دانو كجوت ما نعم لول أمد دان سكساك أمد دان ويدي وكل شرط في الصحيح يشترط في ذا سوى التقصير عند من فرطه وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو النظر ما لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي وكل شرط بب شرطه في الصحيح في حديث صحيح يشترط دفن قصتال في ذاك حسن بب شرطه بوقم من يكون في حديث صحيح عملنا شرطه بو في حديث الحسن وحنا لجروم شرط ينقم من يكون في حديث الحسن جروم شرطه يب حديث صحيح juróomi charte yëpp ñu ngi xadisu alxasan lu dul benn nag moo tax mu ne siwa wa lu dul gàttal inde man ca borom xam-xam yoo xam ne faratu jiitu nañ maanaam mooy si wa fi dabti mooy ci dabtu daal ñoom dañ ca gàtt gàttal maanaam fa rijaalu sixaat yi yegg ca dabtu ñoom yegguñ ca yaa ngi dégg loolu moo teqale diggante xadisul xasan ak xadisu daif ak xadisu wax واخ بوب ينفوف من وحيث تابع ضعيف معتبر فحسن لغيره وهو النظر وحيث فسوق من تابع طبنا لن موتوب معتبر حديث بوق من حديث معتبر لبن اعتبار لبن ننغولا دفا توب الضعيف حديث بوق من حديث ضعيف لا كوكو بابا فحسن حديث بوق دفا حسن وعينك دفا حسن لغيره وهو loolu nadarun sawaab la maanaam nasarun jub la nadarun fii firiw settantal nasarun bi maanaa sawaabun daf la bëgg a jàngal ne xadisul xasan dafa am ñaari xaaj comme ni nga xam ne xadisu saxiix dafa am ñaari xaaj am ne alxasanu li daatihi am na alxasanu li gayrihi comme ni nga xamee ne saxiix am na alsaxiixu li daatihi am na alsaxiixu li gayrihi yooyu la bëgg a jàngale alxasan li daatihi moo ëpp daraja حديث بن قمني حسن لغيره لا واي حسن لذاته إتم صحيح لغيره موك أب درجة صحيح لغيره إتم صحيح لذاته موك أب درجة كون سفك يدن يدف تعارض حديث بن قمني صحيح لذاته مم لن يجي تلجي بن قمني صحيح لغيره لا واي صحيح لغيره سفك يدف دف تعارض جي حديث بن قمني دفنك حسن لذاته صحيح لغيره مم لن يجي su fekkee xadisun xasanun li zaatihi dafa def taarud ci xasanun li gayrihi su boobaa xasanun li zaatihi moom la ñuy jiital ci bi nga xam ne saxiix wa xasanun la li gayrihi wa xaysu fas foo xamee ne taabaa topp na muctabarun xadis boo xam ne buñ ictibaar la buñ reconnaître la buñ nangu la ad daifa xadis boo xam ne xadisu daif la kon su boobaa xadis boobu fa xasanun xasan la li xayrihi ñeel leneen lu dul moom su boobaa nekk na xasan waaye beneen xadis moo ko yóbbee moo ko jëlee ci darajay daif yóbbu ko jëlee darajay xasan huwa te loolu nazarun ak njub la ak sawaab la mooy tey xadis bi dafa rot nekk xadis boo xam ne xadis daif la waaye muhammad beneen xadis boo xam ne doonte xadis boobu xadisun daif la beneen xadis boo xam ne xadisun daif la sax waaye boo xam ne dafa ñëw mutaaba xadis bi da nga jàng mutaaba ak itibaar ak shawahid ak yooyu yëpp dafa ñëw topp xadiis bi dégg nga te xadis boobu xadisu daif boobu mu nekk xadis boo xam ne xadisun muctabar la xadiis la buñ itibaar su booba xadisun muctabar bii nii dafay dëgëral xadis ba nga xam ne dafa nekkoon daif wëlbatiku dëgëral ko ba nga xam ne xadis boobu suñ xoolee ci jëmmi boppam rek dafay nekk da ayfun li zaati yi waaye suñ ictibaaree beneen xadis bi dafay wëlbatiku nekk xasanun waaye dafay nekk xasanun li xayri ndax leneen moo ko yóbbu ci daraja xasan xadisul muctabar mooy lan xam nga suñ demee ba ci kanam dañ ko jàngi mooy am na maratibu taadil ak maratibu tajrix mooy taadil mooy manduloo nit ki atte ko ak mandoom wala tajriix mooy jam nit ki maanaam atte ñàkk mandoom dafa am ay maratib benn bu nekk jàngale na ci juróomi martaba ci kanam doonte lu mel ni imaam Suyuti def na ci juróom benn benn bu nekk am na martaba martaba yi su fekkee maratibu taadil martaba yi dañuy gën a kawante dañuy gën a foorante martaba bu njëkk bi moo gën a foor ci mandu bu ñaareel bu ñaareel moo gën a foor bu ñetteel bi bu ñetteel moo gën a foor bu ñeenteel bu ñeenteel moo gën a foor bu juróomeel bi noonu su fekkee maraati bu tajriix itam mooy koo xam ne dañ koo jarxu dañuy àtte ak maandoom moom bu njëkk bi mooy ki gën a nekk daif ba ca topp moo gën a nekk gannaaw bee moo ci gën a nekk daif ñetteel ba noonu ñeenteel ba noonu juróomeel ba noonu kon léegi nag maraati bu tajriix suñ ca demee danañ ko jànge حديث بيب حديث بو قمني حديث معتبر لا موي حديث بو قمني دنجو جرحو تي مراتب التجريح واي بوكو تي مرتبة الأولى بوكو تي مرتبة الثانية بوكو تي الثالثة دفا بوكو تي مرتبة الرابعة ولا مرتبة الخامسة لولو دنجو جانج تي مراتب التجريح بيب حديث بو قمني دفا بوكو تي مراتب التجريح مو بوكو تي المرتبة الرابعة ولا المرتبة الخامسة من مراتب التجريح كوكو سبوبا حديث لا بو قمني حديث معتبر maanaam yustashadu bihi su boobaa mën nañ cee def istishaad amaa bi nga xam ne dafa bokk ci tu ula wala thaniya wala thalitha kooku laa yustashadu bihi moo tax nag xadis bi su fekkee donte nga xam ne dañoo jarxu boromam waaye jarxu bi dafa bokk ci martaba rabia wala xaamisa kon su boobaa xadis la boo xam ne mën nañ caa istishaad su fekkee dañuy gis beneen xadis boo xam ne xadisu daif la xadis bi mën na koo dëgëral ba nga xam ne xadis boobu mën naa jógee ca doofam nga والبتي كونك حسن لغيره معنى باعتبار لذاته كوكو سبابا ضعيف لس باعتبار لغيره كوكو سبابا حسن لغيره لا لله وحيث فسوق من تابع توبنا معتبر حديث بوقن بني اعتبار له موي بوقن لو بوك تي مرتبه الرابعه ولا خامسه تي مراتب التجريح مو توب لان الضعيف حديث بوقن حديث ضعيف له kon su boobaa xadis boobu fa xasanun xasan la li xayrihi su boobaa dafay mujj nekk xasanun li xayrihi wa huwa te loolu nazarun sawaab la maanaam nasarun jub ndax dañuy wax ne addaifaani yaglibaani qawiyan ñaar ñoo xam ne daif lañ suñ dajee mën nañe not koo xam ne qawi la kon moo tax benn bii dafa nekk daif bii nekk daif waaye suñ dajee bii dafay dëgëral bii ba nga xam ne day toxoo ci doofoom nga walbati ku nekk xasanun li xayrihi te kon su boobaa yuxtaju bihi waaye la tax ñi ci dafay ixtiyaaj mooy beneen xadis ba ko dëgëral waaye suñ xooloon li zaatihi rek daif la te daif la yuxtaju bihi wala lañ cay ixtiyaajee dana ñëw maa lam yakun li tuhmatin bil kadibi aw shuduuti fan jibaaruhu bi maa lam yakun feeg nekkul nag moom xadis boobu nga xam ne dafa nekk xadisum daif li tuhmatin ñeel ak tuuma bil kadibi ci fen aw shuduuti wala ak jàdd qiyaas su fekkee xadisu daif bii li ko daf doofu maanaam li tax ñu def ko mu nekk xadisum daif mooy boromam dafa nekk koo xam ne muttahamun bil kadib dañ koy tuumaal fen wala xadisam ba dafa nekk xadis boo xam ne xadisun chaz la su fekkee dafa am ak chazur gu ca nekk wala dafa nekk muttahamun bil kadib kooku doxfu googu moom beneen xadis dootul ko mën a dëgëralati maanaam donte nga xam ne am na beneen xadisu daif boo xam ne xadis la boo xam ne dafa bokk ci martaba rabia ak xaamis ci maratibu tajriya sax du tax mu mën a dëgëral bii lu tax li anna raawihi muttahamun bil kadibi kon su boobaa tuumaal giñ ko tuumaal fenn moo tax leneen du ko mën a dëgëralati wala mu nekk loo xam ne dafa nekk saab sax kon beneen du ko mën a dëgëralati mu ne su boobaa fan jibaaruhu ak jañam jangam de ubi bañeef na ko su boobaa de dootuñ ko mën a jangati maalam yëkkun feeg nekkut boroman mut li tuhmatin ngir tuuma giñ ko tuuma bil kadibi ci fen aw sudud wala jadd xiyaas kooku moom su boobaa fan jibaaruhu ak jangam de ubi bañeef na mu ne hada alladi min rimdihi qad intada man xaqaqa alxusna wa jaabil murtada hada lii daal alladi mooy la nga xam ne qad intada bocci na ko min rimdihi ca mbaram ma kan man ka nga xam ne xaqaqa wéral na alxusna xaddu buy aji rafet dégg nga wa jaa te mu dikkee bil murtada ci xaddu boo xam ne xaddu bu ñuy gërëm la manam hadha li moy nim jangale hadithul hasan taqsim ko ci hasan li daati hasan li gayri nim ko jangale ba pare mu hadha li dal alladhi moy la nga xamne ne qad intada bocc min rimdihi tuke ci mbaram ma kan moo bocc ci mbaram ma man ka nga xamne moy ibn salah mom la ci jublu حقق ورلنا الحسن موي حد بو boo حد بو xaddu موي ولا الحسن حد الحسن وجاءت xaddul بالمرتضى معنا بالحد المرتضى كي تعريف وقمنا تعريف بني قرم له كون فوفلا لغي نجل نعري بيتي ويتكوتي وآخر القسمين دون الأول والأول الصحيح عنه معتلي إن لم يكن الأول صاحب الطرق وإن يكن صحاك لولا أن أشق وآخر القسمين مجوك نعري قاجي نعري قاجي وآخر القسمين مجك نياري قاج موي حسن تي بوبام دا فام نياري قاج حسن لذاته اك حسن لغيره كون اخر با موي بو مجي موي الحسن لغيره دون الاول يسمى بنجك موي حسن لذاته مو غنا كاوي حسن لغيره كون حسن لغيره موي الاخر بي دون الاول يسمى بنجك موي الحسن لذاته كون نيوم نيار سو فكيا دا يا داف تعارض نيوم نيار su boobaa bi nga xam ne xasanu li zaati yi moom lañuy jiital ci bi nga xam ne xasanu li xayrihi la donte nga xam ne ñoom ñaar ñëpp mën nañ def ixtijaaj waaye nag wal awalu bu njëkk mooy ban alxasanu li zaati as asaxiixu sahih mutadala la muctalin aji kawe la anhu ci moom waaye bu njëkk bi mooy lan mooy alxasan li zaatihi kooku moom asaxiixu xadiisu saxiix muctalin aji kawe la anhu ci moom xadiisu saxiix moo ko féetee kaw saxiixun li zaatihi ak saxiixun li xayrihi yëpp ñoo ko féetee kaw waye sahihun li ghayrihi batay momit sahihun li zaati moo ko féetee kaw motax nima la waxe won ni tartibe won sahihun li zaati mo fete kaw sahihun li ghayrihi top ci xasanun li zaati top ci xasanun li ghayrihi mo ci gëna soufé suñ dafé suñ dafé taarud non lañ leen di jitalé إن لم يكن awalu صاحب طرق وإن يكن صحك لولا أن أشق ashuq xam nga والأول na wax ne wal awalu الحسن لذاته الصحيح حديث صحيح دي معتل اجي كويلا عنه جمام بنا نموكو كوينا موي إن لم يكن سفك نكوت إن لم يكن لم نكوت الأول بنجك فصاحب طرق لبرم طرق نفك الحسن لذاته أموت أي طرق وإن يكن سفك دفنك صاحب طرق نكون سبابا صحة دفن مجنك صحيح كم نيقا ميان بين ولنك صحيح وجوخ لك مثال كحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أنا حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حديث لبو قمني كنيت دي محمد بن عمر موك صلوه محمد بن عمر بن علقمة صلوك جليكو جي أبي سلامة مجليك أبي هريرة رضي الله عنه محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه muy benn riwaaya muhammad ibnu amrin mi ibnu alqamata dañuy wax ne mashhurun bi sidqi la kuñ siiwee ci ak dëggu la ku dëggu la waaye nag yeggut fi gaayatu dabti wal xifzi kon nag gannaaw yeggut fi gaayatu dabti wal xifzi nga xam dafa am tawassut ci dabtul xifzi moo tax riwaayaam bi dafa nekk xadis boo xam ne xadi riwaaya na xadisu law la an ashuqa ala ummati la amatum bi siwaake waaye xadisam boobu dafa nekk boo xam ne xasanun la waaye xasanun li xayri xasanun li zaatihi la waaye nag xadis bi dañ ko riwaayaat ci beneen anam mooy riwaaya nañ ko ci abi hurayrata ci beneen anam mooy buxaari yoog muslim solo nañ ko dégg nga jëlee ko ci abi zinaad an aaraj an abi hurayrata radiallahu anhu léegi xoolee riwaaya buxaari yu biñ jëlee ci abi zinaad an aaraj an ak muslim سين رواية دفنك بوقن صحيح لذاته لا سين قول رواية محمد ابن حسن كي محمد ابن عمر ابن علقمة رواية فقط مم دفنك حسن لذاته وينك سين اعتبارات سين اعتبار رواية بخاري ومسلم بسبوبة رواية محمد ابن عمر با داي ولبتكو نك صحيح لغيره كون حديث به من نك حسن لذاته باعتبار من نك صحيح لغيره باعتبار mën naa nekk saxiixun li daatihi bi ictibaarin bi ictibaari cheikhaani wala bi ictibaari cheikhayni muy buxaari yoog muslim su boobaa xadis bi xasanun li daatihi la bi ictibaari muhammad ibnu amrin ibnu alqamata faqat kooku su boobaa dafay nekk xadisu xasanun li su fekkee dañuy ictibaaraale ci xadisam boobu nga xam ne yee dañuy ñëw topp ko mooy bu buxaari wa ak muslim ba su boobaa moom xadisam bi day toxootewoo ci xasanun li daatihi wala bëtiku nekk saxiixun li ghayrihi moo tax mu ne wa in yakun su fekkee dafa nekk nag in lam yakun su fekkee dafa nekkul nag al awalu saaxiba turuq mooy xasanu li zaati yi nga xam ne benn tariq la rek amma in kaana saaxiba turuq kooku su boobaa dafay wëlbati ku nekk saxaa moo tax mu ne wa in yakun su fekkee dafa nekk saaxiba turuq saxaa su boobaa day wëlbati ku nekk lu wér kalawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bi siwaaka anda kulli salaatin ñu ngi jéggalu xam naa ne darsu bi xaw naa gudd alhamdu awalu daawaana الحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من حين إلى حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد صلى